bokk itam di fi teew ñu leen di nuyu bu baax a baax di nuyu gouverneur de la région Mouhamadou Moustapha Ndaw ak mboolem ñu mu àndal ñëpp di préfet ak sous-préfet ak mboolem service yi fi teew yëpp di leen nuyu nag ci turu ki nga xam ne ci ndigalam ak kàddoom lañ fi teewee muy Cheikh Mouhamadou Moustapha ñi nga xam ne tey mooy fii jëm Serigne Touba tey ci kaw suuf. mu boole maag bokk yi tedd yi ma àndal ñu seq màggal gi daa ko ànd te nga xamee leen ñu ñëw teewal ko fi ngir saytu bis bi bala ñoo tàbbi ci waxtaan bi nag ñu fàttaliku bu baax suñu kilifa gu tedd gi nga xam ne na ni di daaw ci ndigalam lañ fi teew woon muy Cheikh Sidi Moukhtar di ñaan suñ borom doole ay leeram te taasuñ ci barkeem te mboolem loo xam ne mës ko fi jëf ci bi màggal gi jëf ko ci lislaam jëf ko Serigne Touba tuyaaba ja fekk ko fa mu tëdd kon mënees koo ñàkk fàttaliku ndax xam màggal gi itte gi mu ci daal ak ñor gi mu ko ñoroon ak li mu ci daa taxawee lépp ci liggéeyam ak mbiram kon ci turu sëriñ bi ñu ngi nuyu ñi fi ñëpp foo séenee seq liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy tàmbali ni ko gouverneur waxee léegi muy lu jëm ci waajtaayu màggal bi muy màggal gi nga xam ne moom la sëriñ bi jëkk def mbirum sëriñ Tuubaa nag noonu rek la ku agsi ku ne rek yam fa kële jëkk tàmbalee nga wéyal ko ca kem nam ko sobe kon Cheikh mu taxa démb ci timis fa laa jullee fàttaliwaat ko liggéey bi ak ni mu daa doxee ak ni ñu ko daa ànd lépp leer leer ko ko ci njëlbeen bi ba ci mujj mu wax ne amul dara lu mu ci soppi lu ci ne nañ ko daa doxale amul ci lenn loo xam ne lu weesu nañ fexe ba mu gën a jag baax kon ñu ngi di nuyu di doon jotali ay ñaanam di ñaan moom itam suñu borom bàyyi ko fi ak njabootu Sëriñ Tuubaa bi topp yi ginnaawam liggéey bi nag kon bala ñoo def dara faw ñu sant ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal nga xam ne lu ci am ci nam rek ginnaaw dogalu yàlla ak bëgg-bëgg Sëriñ Tuubaa ndam li moo tax moo am tàmbalee ko ci majlisu suuraa bi nga xam ne ñoo nekk nii sama wet ànd ak ñoom ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci kuréel gi saytu màggat gi ci njiitalu Serigne Ousmane ñëpp ci kay ci njëlbeen bi ba ci ko mujj gi ñu ngi leen di sant bu baax di gërëm ci positif ak yitte ji nga xam ne am nañ ko ci màggat gi ngir xam ne ku ci ne lu ci waay def sa bopp nga koy defal ndax santaane Serigne Touba la muy xew-xew bi nga xam ne waxuma li ci senegal waaye Afrique moo fi ëpp ndax li fi daje. daaw xayma nañ ko ci lu ëpp 5 millions muy loo xam ne foo ko natt ren rek bu déwénee day yokkuwaat kon loolu xew-xew la bu rëy boo xam ne ndamul lislaam la ndamul yoonu murid la waaye ndamul senegal la képp koo xam ne nekk nga Afrique itam ndam la ci yow euh, sëriñ Abdoul Ahad Mbacké daana wax ne màggal gi mooy suñu fête d'indépendance ndax loolu li tax mu ko mooy màggal gi bu amutoon sëriñ bi jóge fi tukki kon Sénégal du moom bopp kon màggal gi mën nañu wax ne mooy dëgg dëgg fête indépendance bu senegal te lool itam yëg bi ci nit ñi am la demee muy loo xam ne itam li muy jariñ ci réew mi bari na lool te li ci jiitu mooy jaamu yàlla gi ndax delloo gi muy delloo ñëpp ci yàlla nga ko fi agsi ki am xaalis ak ki ko amul ki am daraja ak ki ko amul mënu leen ràññale mboolem itam fu nit bàyyi ko amutu xeet amutu làng ñëpp maase ànd dajaloo am génn bëgg-bëgg am génn jublu loolu tam bokk na ci li nga xam ne dana indi stabilité bu rëy ci Sénégal kon ci wàllu jaamu yàlla ni ko Serigne Touba santaane loolu mooy li ci jëkk ci wàllu économie yi li muy dugal ñëpp xam nañ ko ndax daaw xayma nañ ci wax ne li muy dugal ci màggal gi ci Sénégal ëpp na deux cent cinquante milliards kon loolu rëy la kon màggalu Touba rek mooy feet gi nga xam ne doonut luy daaneel économie waaye day yëkkati économie loolu itam kon mbir la moo xam ne lu mel noonu luy dugal lu rëy noonu ci biir réew ñi ko seq it war nañ koo ne noonu jox ko àq ak daraja jimmeeku ak lim yàlloon kon gouverneur xam naa dañuy tàmbali kàddu bi joxaat la ko ni ko daa taxawee bu ko demee sëñ Ousmane bi nga xam ne mooy coordinateur comité bi moom itam ñu jox kàddu bi nga seq ko moom mboolem ñi nga xam ne war nañ cee bokk ci ñi seq liggéey bi muy ñi ci wàllu nguur gi ak ñi nga xam ne mooy comité organisation bi nga xam ne ñoo seq màggal bi ak mboolem kuréel yi si nekk ak ñu koy saytu ñëpp ñu ñu maase ànd ci kenn ku ci ne lam ca war a wax moo wax ko ca tañ fexe ba sàmmonte wax bi muy bañ di génn màggal bi mhm. ndax daje bi dañ ko def ngeen màggal bi waaye defuñ ko ngir rek la yeneen problème jàmbur yoo xam ne yeneen jafe-jafe ndax bu dee loo xam ne ajubu ci màggal yi tey lu te muy lu sëñ bi war a def itam sëñ bee koy lijjanti boppam ndax yoonu murid ku ne xam na ni muy doxee tënku ci kilifteef la déglu ndigalu sëñ bi la te sa kilifa kenn du ko jiital kenn du ko jiital kenn du ko jiitu la suñ borom waxoon ci malaayika yi rek laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun laa yasbiquunahu bil qawli wa hum bi amrihi yamaluun kon loolu ñu koy bàyyi xel waxtu wu nekk kon li ëpp solo ci li nga xam ne danañ ko fàttali rek mooy ci wàllu yi nga xam ne mooy ndey màggal gi ci mbooloo mu fi daje ngir ñu mën a nekk nekkin bu baax la ci jiitu te muy loo xam ne nguur gi la ñoo ko war a def bokk na ca ndox bokk na ca courant beneen bi nga xam ne it mooy assainissement bi nga xam ne fan yëpp ko ne xam ne rek Touba am na ay jafe-jafe ndox loolu nag sëriñ bi. du xaar rek ba nit ñi di jàmbat muy jug di sàmbara lépp loo xam ne lu jub si la lam ca war a def na ko ca ndax daaw toog nañ fii fàttali ne màggal gi nañ bàyyi xel ne bu dee ne dana tàbbi ci nawet kon daanaka bu agsi ci nawet bi dana ko jënd wala dana fekk taataay du jeexagul moo taxit sëriñ bi laata koor bi la ma yéen woon ci ki jiit réew mi wax ma yëtt yëf yi nga xam ne mooy li ko ci gën a soxla mooy wàllu ndox mi ak wàllu assainissement bi ak wàllu courant bi wàllu ndox mi itam fa sansa la président joxe digal ministère bi ko ne ko gàtt-gàtt ñetti forage ba ñeent nañ feexe ba dolli ko fii màggal yi fii may wax ak yow nag ñetti forage moom yemb na ñi ko war def mooy entreprise bi nga xam ne moo ko war kon ñooña ñu leen ci soññ ñu feexe ba def ci yitte te xam ne gi di ci ëppatu ñaari weer am na yenn ñaari forage yoo xam ne maa rahmati ay taari bi ñoo ko barkeeloo te suñu Cheikh Aliou tàmm doon benn bi bi ci des am na beneen taalib boo xam ne Cheikh Mawal Mountakha boole na ko moom ba war naa ko boole waaw moo war fa te war na fay defaat ñaari forage loolu nag foog naa ne bu àndee danañu dimbali lool ci ndox mu mag moom. fii ba bitim réew ñu may ñëw ci man di laaj ak di wax ci wàllu fayu ndox mu Tuuba muy loo xam ne ñu bari ci wax di laaj. ba xam ndax sëriñ bi dafa jox ndigal ngir ñu fay loolu ma di leen xamal ne sëriñ bi kat loolu mësu ko cee wax ndax moom dama fekkoon ay kilifaam def ko muy dox ba agsi ci moom loolu la fa séenee sàmm nguur gi itam yëgaguma loo xam ne programme bu ñu wax lu dul li may dégg ci rajo bi lu ñu wax ne ñoom ñeneen dañoo bëgg waa waatu ba fay dox kon nag li may dégg ci mbedd bi moom du ma ci doon waaye nag comme jaadu na kenn ku ne di laaj ba xam loolu nu mu demee nu mu tëddee ma di leen xamal ne yéegaguma benn programme boo xam ne wax nañ dañ koy def ngir Touba dafay dox sëriñ bi itam joxewul ndigal ndax moom li mu wax mooy bala ñoo tal ndox mu neex nañ fexe ba ndox mu duy ci dëkk loolu moom moo ko ci daan kon nag loolu lañ mën a jàpp ne loolu mooy li ci li ci ay wax lay doon yoo xam ne xamuñ wax ne fu mu jógee wax joo xam fu mu jógee yaakaar naa jiw toog. ba ca des it mooy wàllu assainissement bi moo itam lañ ca waroon def def nañ ko ca ndax am na ñaari programme benn bi mooy assainissement bi nga xam ne dafa jëm ci wàllu ndox bi booba euh, xam ngeen ni dëkk bi am nañ ci xat-xat suba ci takkusaan la ñu war a tàmbali liggéey ba tàmbalee ko ca ndaamaatu ndax gis nañu foofu la gën a métti ndaamaatu ak Kajang buñ ci jugee dem ci yoonu. Madiyana bi foofu bokk na ci fi gën a métti ak yeneen barab yi nga xam ne ñiy seetu loola ñaa nga jël seen liggéey waaye suba entreprise bi ko war a tàmbali suba ci takkusaan ci lañuy war a tàmbali liggéey kon loolu itam beneen assainissement bi nga xam ne moo jëm ci wàllu foos yi itam état bi dugal na ci lu mat fanweeri milliards ñett moom itam entreprise ba ko war a liggéey wax nañ ne gagné na ko ba noppi tàmbali liggéey balaa màggal danañ ko tàmbali kon loolu itam ñaari jéego yoo xam ne itam faaw. ñu ngi ko seqalit xamee ko noonu kon li ci mat a gën a soññiwaat te sëriñ Abdou Lahad Ka wax na mu fa ji mooy waa Sénégal ñu gën a mën a jàpp ci poto yi ndax Tuubaa ku fa jaar di fa dox ku ne xam nga ne dëkk bi dem na lool kon nag loolu war nañ ci gën a jàppale nit ñi ndax loolu bu dul màggal itam nit ñi soxla nañ courant bi daaw nag defoon nañ ay jéego ci yokk réseau bi ba mu am doole kon nag ren lii jiitu ci yitte ji mooy fexe ba yokk réseau bi ñu amatul courant luñ ci man ñu dolli ko fi ak mag bi làmp yi itam luñ ci mën a jàpp fexe ba dëkk bi leer ndax loolu itam bokk na ci li tax nit kenn ku ci ne fa nga dëkk moo moo kon daal loolu ci tënk mooy yi nga xam ne dinaa ko tàmbali li ci des nag ñu bàyyi ko ñu yoru comité bi loo xam ne liggéey ba toll na ñu ko luñ ci war a xoolaat ñu xool ko ndax daje bii kat du dajam ragalante ginnaaw jotaay la boo xam ne pour xool liy jafe-jafe yi la ngir mu mën a saafara ndax fii ñu nekk dañ fay ndigal nekk ci ndigalu sëriñ bu wuutu fii ay millions nit bu yoonu boo fa ay nit war nga leen a àggali a àggali ku ci am yitte ci sëriñ bi la ñëw wax ko yitteem kon loolee tam war war la ñun la cay suñu warteef wa maa ala rasul illa al balaa kon ñu ngi yemale foofu kàddu